kon ñu jox alustaz Baara Fall bu ko def moom mu tànleex si lu gàtt ñu dooree tànn leen ci asila yi incha allah joxe ko
asalaamaaleykum wa rahmatullah aoudu billahi min shaytan asalaamaaleykum mbokk yi nu may nu tuuti ak déglu xëy na oustaz Bara Fall mi waa ji jël kàddu ñu bari ci yéen xamuñu ko waaye am nañu ko fi xam nag ci jotaay bi man xam naa ko ab oustaz la ab baayis la jàngalekat la nit ku baax la di seetlu sëñ Tuubaa yi ndax sëñ Mouhamadou Moussa moo jur yaayam yàlla xam na ne xam naa ko boobaak léegi depuis quinze ans am na fu ñu daan daje ma di fa jàng man moom mu jàng ba pare nekk fa di munaaxasa bari na ay téere yoo xam ne traduire na ko ci français kon ñu may ko tuuti ak teewlu mu mën a tënk rek pour li muy wax ñu mën koo jariñoo daal jërëjëf jërëjëf
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله إن ولي الله ما توفيق إلا بالله بوك السلام عليكم ورحمة الله damay jëm rek sàmmonteeg teggee nii jotaay bi nag xam naa ne waxtu wi timing bi dama koy respecté waaye li ma bëgg wax rek mooy bala maa tàmbali mooy maanaam karima taqris moo oustaz yow muhaaj bi toog dama di xamal ne man ñaari kilifa dama def dama ko def kilifa kilifa laa ko def ndax dafa am qualité boo xam ne aw moo ko man damaa ba ñuy ëpp xam-xam mais moo ëpp ko fii moo tax ñaari kilifa am naa ko ci borom xam yi muy oustaz Saliou Salam ak moom mi moom mii nag qualité bi mu am da bu ko amul waaye man na maa muñu ëpp xam-xam moom waaye moom ëpp ëpp moo tax ma def ko kilifa léegi nag la may gàttal rek du ma li ma bëgg a wax dama koy def muhaadara may tam loolu bëgg ñu programme muhaadara ak fu ñu ko mën a programme ma wax li ma bëgg a wax ndax xajafi
incha allah incha allah jërëjëf ما شاء الله أه، سوف تاتي هذه المحاضره ان شاء الله في اقرب وقت ممكن bu ko defee al mufakkiru faylisuf adir zamanihi mu mufakkiru asrihi لدينا كثير من الأسئلة ولكن مع الأسف لا يتسع الوقت لها جميعا وعلى ذلك نختار بعدها ونترك البعض الآخر إلى لقاء آخر إن شاء الله waaw bu ko defee question bii ki ko posé day wane ne moom mi ngi doon topp jotaay bi moo tax ma njëkk koo tàll moom nee na dafa dégg nga wax istidlaal ci waqar na fii buyutikunna wala tabayrujna tabarrujal jaahiliyatil uula muy laaj ci ndax xorriyatu mara dañ ko taqyit maanaam yamloo gi ñu ko yamloo ci këram ndax loolu taqyit xorriya ma benn ba ci topp dama bu fekkee toog na këram liggéeywut ca hôpital yi manqué nañ ay gynécologue yu jigéen ndax bu toogee ci këram dana mën a toog ci këram bu pare nekk ay gynécologue ci ci hôpital yi man diggante boobu ñaar nan la ko mën a jamoo ñaari wax yooyu.
jërëjëf soxna jërëjëf waaw li muy laaj moom mooy alxoriyatu freedom bil maanaam falsafi yi maanaam moom xoriya amul yow ne sa jëmm ni mel yaa ngi xool ci yor bi gis nga ne gënalu la ndax ndax ma nga fexe mu deñ mu deñ xaalab bi mool bi la bi la mool yàlla juddul loo la bawal te moom laa juddul loo Amérique ah sëñ bi loola mooy gën a moom kon moom xoriya xoriya amul moom xoriya moom loolu moom si cheyul nis bii la moom loolu moo amul léegi asmaa bintu abi bakrin mooy awal moo mari dafa taarix islami yi moo moo mari dala woon xas watu oxot xaw xas oxot jigéen la shahida ki ki jëkka deetam jëkka turu ci islam su ma yàlla jigéen la déedéet waxuñu loolu de sëñ Tuubaa njëriñam soxna ya daan nañ cuub yor mban di cuub waaye seeni ndey koy jaay waqara fii batiku na liggéeyal liggéeyal loo mën a jëriñoo waaye nag ci biir kër gi la bu jëkkoon jëkkul rek gut sëñ bi maanaam da nga daa rabb ay séer ñëw ay séer di ko jaay am na ñoo xam ne da soo rafet ba rafet dañuy dikk ji ramas ko yóbbu jaay ko liggéey boobu nga xam ne ci biir kër gi la nga xam ne da nga mën a toppatoo sa borom kër gis naa ko fii benn sëriñ boo xamante ne yor ñaar sono la yor xaw ma ñett takk takk mi daan ma sulu du kër la dëkkoon kër gu mag gi fii ji daa ko dos bi daan koy koy koy toppatoo soxna yi ne fi ba ko mu takk ko waxar na ci mooy loolu sa sa borom kër bi sa doom yi nga nga mën leen a saytu suñ demee ba ba nag société bi soxla tamrit dama ci ci Masaalikul Jinaan ba doon xalwa doon ab tailleur am ko soxla mbubbam mu xotti ko yaa ko war a ñëw da nga war a génn xalwa bi dem ñool ko woon suñ doom loolu xam saa suñ demee ba nga xam ne yow yow yow yow yow fardu bi ngoonee dañ laa soxla ci hôpital ba kafar la kafar fa de waxuma kay mbooloo kenn la kenn ki suba da da da nga war a génn asma bi tooy bi kenn loolu ko génne woon saa su ngi daa xëy ne mu daa mu daa jox dund saa su la mag a ba kenn sa déet ca xaar ba ah leer na kon xanaa
ñu ngi jégalu ci tàgg gi xam naa daa bëri question yoo am solo te ñu bëgg yëpp gàtt moom dafa wax ni comme que falsafa dañ koy jàng ngir régler problème yi ci nekk te gis nañu ay falsafa yoo xam ne seeni jamono problème yañ fa dajeel ñoom ñoo ko résoudre ba lijjanti ko léegi kon falsafa yi nekk ci jamono jii nii ak problème yi nii ñu nekk ci tarbiya ñoom lañ nañ mën a def ba xàll ko
xam nga nag Sénégal moom bawal xam-xam ju dëggut waaw mystique dañuy dund mystique mystique dafa aajo démystifier démystifier ab ëmb dañ teg fii kii ne lu ci nekk ñu ne xanaa am mburu am njaayam la ne mburu ci nekk kii ne ko déedéet ab junni la kii ne ko déet or la kii ne ko déet xaalis la te te te kenn du kenn du ubbi ëmb bi loolu mooy mit mit mit mooy lu ñu ràbb ba mu rëy lool te kenn xamul li ci biir philosophie yi mun ñoo wax de déedéet maanaam Bawol Sénégal li ñuy dund mooy ak ak lëndëm ah leeru falsafa nag munta maanaam bu jollee ci gox yi bët yi day gumba afaatoon ca kaf bu ba ñemee noon ci kaf bi ne ca ay at bu ñu leen xëy xëy wëbati leen ñu jelloo jant bi dañu gumba dañu koy wan nak-nak ba bët yi bind ko kon place bay ñoom asma bi mënuñu ko kii dëgg dëgg dëgg ndax bu ñu waxee li ñu xam kon du baax mooy rek ca sow ba xalaaj ba ba waxee la mu xam lépp yàqu ko junne di mi wax nànk di par nànk moo jëgale fii kon kon ko suma bokk
kon xam naa bi tëjee si gàttal insha allah moo dafa gis ni day laaj yan méthode lañ jaar la noonu yi jaar ba nation qiimatul mara yan méthode lañ jaar ba valeur bi nga xam ne moo nekk ci jigéen ñu dind ko ak ci gàttal buñ ko bëgg a dellu soit ci ban méthode la ñuy jaar
xam nga 14 18 alxarbul umamiyal européen man du ma wax gor guerre mondiale de nooñ bokkuñ ci woon nooñ ak nooñ dañoo yilifoon xarbul umam al européen laa koy tuddee xam nga lu taxa ci kanam ci kanam bu taarix dee muhaasaba ñi sooke woon xeex ba toit bi dañ ko bëgg a bëgg a adduna bépp moo moo suñ tuddi ko guerre mondiale al al al xarbul alamiya déedéet xarbul umam al européen la al ula wa saliya man man noonu la koy tuddee 14 18 39 45 la Hitler Allemagne amatul góor góor ñëpp a nga ca front ba amatuñu góor ku ne ci usine yi di di liggéey ay ay bomb ñu génn jigéen ñi nga ñu dem ci usine ya bi guerre bi jeexee ñu wëyee ngelaw ci kër yi ñu ne jéem du du du duñ fa delluwaat. bu tax nit ci nee nit te de nit nee na ñaawteef bi ak xelal européen def dëgg-dëgg mooy tax lu mara génne ko ko ci biti. loolu yëkkut 39 45 rek de loolu moom amaa nag delluwaat jigéen ci ci ci kër yi moom xanaa kay yow farde bi kenn ki maam Cheikh Ndiaye fexe ko. fexe ba soxnaam gëm ne daa watu ci kër loolu moom fard la ndax léegi sëñ bi tubaab bi dañoo dominé yow xool tubaab murit gi amuñu télévision boo xamante ne ne risaal al muridiyya moom lay jàllale amut teewul amu ko Kaolack amu ko kenn amu ko islam yi Sénégal amul télé amul rajo ah sëñ bi sëñ bi xoolal TFM moom sëñ bi TFM moom incha allah moom mi ngi liggéey liggéey bu rëy rëy moom ci mabbu diine mabbu diine moom léegi bi TFM de di mabbu diine amul beneen télévision boo xam ne daa taxaw ci kanamam mu wàcc amul kon moom jigéen ñi moom incha allah dañuy gën a gën a ci mbedd mi dañuy gën a maanaam bon lépp day gën a yàqu fexe amul.
ok xam naa jeexoon na waaye daa indi benn laaj boo xam ni damaa gisoon ay jamono nga ciy wax. waaw maakaar ni dañ ko war a kii sol ci mais arras arrasaay ala sonriya yi nga xam ne moo lañuy def di istihdaam atfaal yi. ci jamono jii. mu ne arrasaayil allah sonriya yi nga xam ne mooy ñëw di istihdaaf atfaal yi comme ci jamono jii nii fowukaay yi nga xam ne moom lañ génne woon ci moom góor ak jigéen maam ñu koy yor ci école yi di ci fowee ak léeg-léeg tamit xeeti sangri yi nga xam ne moo lañuy def ay jus di ko jaay nga xam ne daanaka nit ñi dañ ko romb te duñ ci desee bàyyi xel bu baax wala mu ñëwee ba xam tamit mu jaabaxa bi ñu war a def nga dind ko di nga ci dind mu ne loolu ban tax def bu gàtt rek nga ci def bu ko defee ñu tëj jalsam incha allah xam nga xam nga ci ay fukki at ci ginnaaw nasaraan yi def nañ fi fii maanaam benn jaww la fii ci dëkk bi injil tawraat injil lañ jël def ko ci wolof wala bu neex def ko ay bande ànd ak téere di ko di di ko may soxna yi jaay caaf ma man indil lañ ma bande ba ma déglu ko waaye sëñ bi sëriñ si war xeex ana ana sëriñ sa maanaam saar bi saar xam nga saar falsafa mooy lépp lu yàlla araamal dagan na loolu mooy falsafatu saar mooy kon moom léegi yow nañ jàngal cinq ans la ñuy jàngal xale bu jigéen bi futti ji futti moroomam teg ko ci kanam tabla bi ñu ne ko jëmm ji nii la mel ne ko de jëmm ji moo dàq mu bi loolu saar loolu la jàngale moom loolu moom insha allah taala sangara si sangara si bokk na ci liy provoqué ba xale bi du am kersa pour saar de dem dañuy naan sangara soo xam ne sangara su woyof lay doon sam xel dem du doo am kersa ngir léegi liñ bëgg def def ko waaw ana sëriñ sëb déet sëñ bi xam nga sëñ bi sëñ sëñ Bara Fall naan damaa ñëwee déet ñi ñi moom mooy sëñ bi maanaam fi mu toll man maanaam man damaa xamut nu may def sëñ bi xam sëñ bi dëgg wax dëgg gii yàlla yàlla mi bind mosuma ju kokki yàlla laay waxal man yàlla ne ko ñi ngi ñaaj sa tool bi loolu kuñ bind ku ma ci ragal yàlla bu ma am ku ñuy bind ku may ci wax dëgg njëriñ dama dem ci ak kër di tuur ndox fekk ñu bind fa ko duxula ko duxula bi salaamin aminin duxula bi salaamin aminin ko bind ñu bind ko ci seesu turki yi seesu seesu turki rek bu seesu turki de seesu pharaon yi de bu bu temps bi yàtoon ñu ko wax ko du du turki de pharaon yi ñoo ko liggéeyoon seesu yooyu ñu bind ko ci fi nga xam ne fi la soog muy turu ma xool muy mbindum rafet mbindum maanaam léegi léegi maam Cheikh Ndiaye mu rafet ma ne ma ne lii ma ne lii xanaa du du moom xanaa ma dem. Aliou Sow ma ne di naa xool ma xool muy muy loolu ma woo am maçon ne ko ñëwal kii ma ko defal ma ko ba def ko. ma ne ah lépp lépp ginnaaw nag kat dafa woo yett kon taf bi kon ma nga fa ma dem ma woo sama Aliou Sow ne ko kaay toj ko ma toj ko boobu kër ga yow tàng jër tàng tàng di bàgg nangam. léegi gars yi ne mu soirée li nga def yoon xam nga kër jàmbur la may leen mën mën na lu ma dara saaga la man dóor yóbbu police rey lu mu ci def baax maanaam mënul ma dara maanaam même bu ma reyee mënul ma dara man chahid la it si mooy si loolu yombul de yomb na bas-bas bi danaa yëg ma tiit su ma doon rek dana métti ci man déedéet waaye man man damay kontaan ndax maa ngi dee ci lislaam lo maanaam li ñu ci man ak ñeme doog ñeme gëm yàlla la. asalaamaaleykum wa rahmatulah.
macha allah. laa taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima aataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim ala xawfun alayhim wala hum yahzanun ah lii nag moom ci ku sant Ndiaye la waroon a jógee xam naa jotaay bi am na solo lool xam naa ne moom bu alhamdulilah bu ñu amoon jotaay bi mel nii ngir gën koo jotaay dañ ci am solo ndax bëri na ay kat ci biir xam ne bëri na ay kat bu ko defee tamit di sàkku ci suñ bokk yi talaabi yi boo liggéey ñuy teel a ñëw bu ko defee tamit jotaay bi di gën a yaatu idan min huna narfa al jasa التي كان تقام فيها المحاضرة التي كان يلقيها المحاضر الفيلسوف العالم علام والبحر الفحامة السيد الأستاذ محمد مصطفى جوك كوكي على هذا اللقاء قريب إن شاء الله تعالى léegi question yi li tax yëpp jàll dañu ko jël dañu ko jox suñu bukkat ba léegi incha allah
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا يبغى نرضى يلا ماما نرضى زين ايه ايه يلا يلا